ci tàmba ñu xool lan moo fa amandi euh, ci Bougane Gueye Dany mi nga xam ne fas yéene na sax jàkkaarloo ak euh, procureur ginnaaw bi ko tegee loxo euh, Grand Kader ñu ngi lay nuyu. waaw ça va bien. ça alhamdulilah yaa ngi en direct Feeling Dakar dañu bëggoon a xool lan moo xew actuellement foofee ca diwaanu Tamba jëm ci mbirum Bougane Gueye Dany. waaw fi Tamba moom daanaka ñëpp yëg nañ ko. moom moo di euh, yéene bi ñu am pour indi fi ki nga xamante ni moom moo di le président euh, du mouvement gëm sa bopp di euh, Bougane Gueye Dany mhm. nga xam ne annoncé woon nañ ko fii depuis démb après li nga xam ne moo di son audition à la présence de son avocat maître El Hadj Diouf mhm. depuis biig ci daanaka vingt une heures vingt deux heures am na ñoo xam si woon nañ ko fii waaye bi ñu gisee ni tardé na ba ci bëccëg bi aussi ñu gis ni ba léegi ñëwul donc nit ñu bëri a xam lan moom ba léegi Euh, ñu ne dañuy transféré ki nga xam ne moom mooy le président du leader euh, euh, gëm sa bopp muy Bougane Gueye Dany ñëwul. Mhm. loolu commencé nañu ay frustration bi ñu xëyee suba ko fi gis nañ ni huit fekk ko fi fekk ko fi bien que loolu nag ay sañ-sañ la bokk moom mooy ñoom ñoo xool heure bi gën a approprié mhm. ñu indi ko. Mhm. mën a nemmee ko mooy ñàkk ñoom fii nga xamante ni moo di Tamba commencé na. di indi ay jiixi jaaxa ci lan moom moo ko téye fi nga xamante ne ni moom moo di fële ca Bakel ba léegi mu mel ni nag loolu leneen la waaye tamit gis nañ ni ñëw ñi nga xam ne seen ñoom ñoo di les leaders. Mm-hmm. yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci coalition sam sa kàddu à commencer par euh, Thierno Bocoum euh, mm-hmm. ki nga xam ne moo di Pape Djibril Fall waaye tamit euh, tête de liste bi di Barthélémy ñoom ñëpp bi ñëwee aussi ànd ak ki nga xam ne moo leen dalal muy le responsable politique euh, di Mamadou Kassé nekkoon euh, président ki nga xam euh, DG SHLM. Mhm. moom nga xam ne moom moo di bi mhm. dafa dafa mel ni dafa génne nga xam ne moo di population bi ñu gën gis seen bopp ndax seen ay leader ñëwul ñëwal mhm. li ci doolee ko rek mooy bi ñu toogee ba côté une heure di jàpp une heure. dafa am ay nit ñu commencé gis ni kat yëf yi mi ngi jël forme ñoom. ñëw commencé di scanner li nga xam ne moom moo di turu euh, seen leader di Ousmane Sonko euh, ci jamono joo xam ne si ni ki ñu jàpp moom moo di Bougane Gueye Dany euh, bokk ci coalition Sàmm Sa Kàddu loolu nag indi na frustration mm-hmm. yu bëree bëri ak jàppante yu yu fi jot a am jóge ci ay nitu Pastef yu a bëgg a indi ay ay wax donc loolu nag gis ci la ñu renforcer li nga xamante ne ni moom moo di ay euh, éléments yu gendarmerie euh, ak la police ñoom ñëpp ñëw daje fi nga xam ne ni moom moo di ci tribunal régional bu bu Tambacounda. Mhm. Euh, lii nga xamante ni moo ci am aussi bi ñu duggee ci biir. Mhm. donc ak ak les responsables politiques yëpp ñëw dugg ci biir tribunal bi donc ndax lañ la bi nga xam ne si ni coow gi jug na xam ne si ni moom moo di Barthélémy ak ñi mu àndal yëpp loolu aussi. yenn frustration yeneen. ndax bi nga xamante ni génn nañ ñu bëri dañ cee gis seen bopp ne mënut a nekk parce que boo ku mel ni bàttali bi mënul ko génne ci biti ndax biñ ko génnee euh, dafa gën a yokk li nga xam si moo di coow li fi ñuy wax nii dafa mel ni euh, bugaan mooy doog a egsi yegg si na bugaan mooy doog a agsi nii à l'instant même donc euh, mouvement bi commencé am bi ñu toll nii. Mhm. waaw bi ñu toll nii ñu gis ni mouvement bi nga am parce que fii ñu taxaw nii dem. Bougane moom moo nekk di di doog a yegg si nii. yegg si ci tribunal bi département régional mhm. bu Tambacounda. Euh, les responsables politiques ñu ngi préparé ñu ngi pour gàttandu ko. Euh, génn nañ ñu yut seen i ay oto. Mhm. Euh, taxaw pour gàttandu ko donc boo xoolee ci bopp bi ki ko jiite moom moo di Barthélémy Dias ci wetam Thierno Bocoum moom moo ca nekk ca wàllu ba ca ki nga xam ne si moo di. Euh, Thierno Bocoum Pape Djibril Fall. Mamadou ak euh, ñëpp ñu quoi. Mhm. donc loolu moom mooy li fi am Bougane a ngi nii doog a si. doog a euh, mhm. ko indi ak bi dem ñi nga xam ne si ni moom moo di ngi noonu mais militant yi fa jotoon nekk ci ñaari côté yëpp ñoom dispersé nañ leen. waaw waaw fi ñu toll nii militant wu li nga xam ne si moo di Pastef yi nga xam ni. Mhm. ñoo indiwoon coow li dafa mel ni euh, delloo nañ leen ginnaaw parce que li nga xam ni moo di la gendarmerie aussi bi ñu demee ba détecté ñi nga xam ne si ñoom ñooy faiseur de trouble yi dañoo ñëw dégagé leen parce que euh, bi seen leader moom lañ fi convoqué moom lañ fi jàpp ndax bu fekkee dafa am culture tey jii moom mooy leader gëm sa bopp. donc bu mhm. fekkee da ngay ñëw normalement c'est pour le soutenir mais mënuñoo ñëw ba pare am yeneen comportement yu wute ak li nga xam si moo am parce que dañuy dem ba. bëree bëri yi nga xam ne mi ngi doon am ci la presse doon ko def ak euh, certaines personnes hmm. yi nga xam ne ñoo présent sur les lieux pour que ñu andi seen ay témoignages dañuy gis ne ñoom aussi dañoo fiche yenn micro yi di ci wax te bu ñuy wax aussi dañuy wax pour changé ki nga xam ne seen i moom moo di euh, Bougane Gueye Dany sax finalement dootoo xamante kan ngay jël parce que dem nañ ba benn moment euh, la presse nangu suñu woon interview bi ku ñu xam Euh, wane na fi ndax euh, am na boo xam ni foog euh, yàlla ak sutura ndax ko ay yoon. Hmm. mais mi ñu jaajëfal la bu baax a baax merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal la moom Kader mi nga xamante ne ni da ngeen koy gis mu nekk chroniqueur foofee ca Sen bi actuellement nekk ca diwaanu Tamba comme ni ñu ko déggee Bougane Gueye Dany mu ngi noonu soo ko yegg si eh, ca la bu eh, Tamba fas yéene jano ak eh, procureur naan mu ngi ko doon xaar ci subaak léegi gis ngeen li mu expliqué jëm rek ci mbir yi tey ji balaa ñuy ñëw. mais Fatou foofu li wax. Hmm. man démb dinañu Me El Hadj Diouf bi muy taxaw di ñu koy interview am ku ñëw ne Sonko Sonko moo fi nekk. Hmm. lan la El Me El lan keneen sa réaction mooy jàkkaarloo am na ko naqari ak ñeneen ak ñeneen daal ne woo leen gendarme yi. les perturbateurs on les fout dehors léegi maanaam buggaan moom dem ne day tibbu tànk te tibbu tànk daa dem dëgg ji tànk xam nga li mu doon def ak Macky Sall mooy lan. Mm-hmm. tibbu tànk maanaam Macky Sall day ñëw ba dem. Mm-hmm. mu doog a yegg si. Mm-hmm. loolu mooy tibbu tànk waaye gars yi dañuy jaawale tibbu tànk ak tëgg dëgg tànk. président Diomaye nekk foo xam ne jëlale naa sax zone militaire. mais jëlal interview maitre El Hadj Diouf bi ko ay nit taxawee ne ko Sonko wala nangam di leen perti bi lan moo njëkk ko nekk réflexe am ñoom ñoom ñu taxaw foofu lan mooy seen réflexe mooy mu ngi leen di bi mu sàkku ci gendarme yi ne nañ woo gendarme yi les perturbateurs dégg nga li mu wax li kiy waxaat fii léegi. Mhm. léegi nag président nekk fen di li fa def. armée nekk fa mu nekk tempon sécuritaire. foofu kii Kidira ak ni nga xamee ni la frontière ak euh, nu mu tëddati wet ki Mali wet gale Mauritanie ak na na foofu kii nga ñëw yow pour perturber beneen bi mooy foofu sécurité amatu fa maanaam sécurité boobu bon bu ñuy wax parce que sécurité bi ñuy wax mooy ndox muy jékki-jékki di ball ak nañ ko mën euh, taxawal ñu taxaw ne la yamal fii nga xëtt jàll léegi man li pour taxaw foofu rek nga jox gars yi kaddu gi mooy mm. Maître El Hadji Diouf bi taxaw di def interview comme ni la ko Kédar waxaatee ni am ñu ñu ñëw di wax parce que foofu ñoom neen la bari nañ fa nit jógee feneen daal di ñëw di leen perturber mu nekk seen set te ñooñu mënoo leen ko bañal citoyen la comme yow président de la république président de la république la mais léegi ki nekk président de la république mu am loo xam ne nii fa mu nekk ak périmètre de sécurité bi yow nga ñëw di ko perturber pourtant bi ñu bëggee wax ay nit ñëw bokk militant fële li nga njëkk wax mooy ci ñan nga daw jëm ñan nga xalaat ñu wàllu la ci coow loolu pour nga mën a def sa interview gendarmerie hmm, dèjà ñoom loolu rek dafay traduire moo lay wane seen mauvaise foi joxal gars yi <laughs> voilà euh, mi ngi noonu euh, sëñ Moussa directement ci li nga xam ne euh, moom moo actuellement ca Tamba Bougane mu ngi noonu soog a yegg si fas yéene jàkkaarloo ak procureur ñoom nag ñuy ñaawlu jàpp ne sax liberté bi nga xamante ne ni moom daf ko am dañ ko ko war a defal ba tax na moom Bougane Gueye Dany dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram ndax lii yëpp dañ ko war a def ci euh, période bi nga xamante ne nii ci la ñu nekk mooy di waajal ay